Maguette Sarr di sëtu Ngagne Diouf ak Maymouna Sarr wax naa leen campement Ngeexoox le 24 incha allah équipe bu Kouthia Show yëpp dinañ ñëw foofu nag li ko waral di ngeen ko xam lundi dinañ ci gën a ñëw leeral ko mais jàpp leen campement Ngeexoox daal le 24 équipe bu Kouthia Show ñu fa nag li tax ñu fay nekk ñoom ñoo ko xam waaye nag euh, na Ngeexoox yëpp préparé di nuyu tamit de passage Mansour Diop di journaliste nekk foofu ci euh, Sen TV nuyu nañ tamit waa rue 25 waa Sambène ñoom Aïda Souka ñoom Moursine ak Lika Fall ak euh, Tata Fat Tata Ndeye Fatou Sow Saliou nekk ci Médina et toute la famille Sambène di am mbégte contentement bu mag ci képp koo xam ne yaa ngi seetaan Kouthia Show mbokk yi ni def rek moom mooy dem seeti euh, ki nga xam ne nag moom mooy euh, Pierre Da Silva mu yóbbu ñu kër ab Ablaye Wade nan la fa nekkee ca biir euh, seeti ki nga xam ne moom mooy xalif Omarien yi démb la woon ca fa nga xam ne moom mooy kër Omarien yi maître Madické Niang jiite na délégation ba waaye ca buntu ba am na lu ñu fa waxtaanee avant ñu egg nañu seeti Ablaye Wade encore qui fait l'actualité ma digg waaw Ndiaye ayju ah, waaw dañuy dem salaamaaleykum waaw suba si wàdd waaw sant yàlla yow ci jàmm rek alhamdulilah alhamdulilah macha allah mhm. waaw léegi waaw mooy bu bi incha allah dama bëgg après ñu def programme programme boo xam ne eh de dañu def marche nationale mhm. bon marche boo xam ne c'est juste pour montrer que on n'est pas pour dëgg dëgg la eh, eh, dañu wane image bu marche pacifique. Uh-huh. dox ñaxtu wax lu ñu metti eh, bien. te loolu sax bu ko defee bëgg ci bëgg sa réew la bokk. loolu ñàkk mën na ñàkk def ko ñëpp xam ne nag Abdoulaye Wade visite ses chantiers dama bëgg na waaw chantier yi ma fi bàyyoon. Uh-huh. visite ko te ñoom ñu bañ ko yëg. dëgg la parce que euh, ñu ñu bañ a xam ne damay visiter chantier yi. ndax jar na mobiliser gaañu wala. waaw mobiliser dañuy def marche nag. li ma bëgg mooy ñu def marche bu ñu amee autorisation. léegi yow bu ñu jógee point E. Uh-huh. ba Euh, euh, rond point Colobane bi. waaw mooy fi ñuy défilé. waaw yaa ñoom Omar ñoom sa Sarr Samir Sarr jiitu. waaw yow bu ñu jugee point ñoom bu ñu jugee monument. dox ba buntu RTS. waaw kooku xale yi nga xam ne ñoom Toussaint Manga. waaw ñoom mun nañu ko diriger. mun nañu wàcc léegi lu ko dalee RTS nag pale la nga nekk ci kanam. waaw mën na nekk loolu. kay ñeme nga ne ci kanam. waaw ñeme nañu xaay xanaa dañ koy def ci ndànk ak tekk ak tey rek barki suñu saali. waaw waaw li mooy. ndax nga wax ma carrément ndax ñeme nga. jiite xale yi à partir de RTS jëm. Palais jëm Palais. waaw waaw bu amul alkaati kay mën naa ñemee. non alkaati mënut a ñàkk yooyu dama lay wax rek maanaam ah. c'est toi qui va parler la presse et eh bien nekk ci kanam. waaw di mën a ñàkk waaye xanaa di waxtaan ak ñoom rek te ndox ndànk rek ba ñu yëngal dara. loolu kay tax may wax kon mën ziar ko. waaw waaye waaye bu ñu ko duggee. waaw ñu xam ne eh bien. waaw ñoom sax ñun daal tànku jàmm ñu tax a jóg. dëgg la la ñu dellu ginnaaw. dëgg la dëgg la nekk na loo xam ne eh bien duñ ko war a caaxaane lu ñu waxee suñu programme. dëgg la duggee waxtaan ak mu ñaan ñaan jàmm ndax ñii. Uh-huh. sama mbokk nañu. bëgg ñu waxtaan laa bëgg ñu répété. waaw waaw ñu demee. Uh-huh. li may wax ci tukulóor moom ngay tekki. incha allah dama la ko wax jolof nag nga wax. bu yàlla su ma waxee ne dama eh bien sëriñ bi maa ngi lay ziar su ma ko waxee sukkal ne la sëriñ bi ñu ngi lay siyaar. ma ne sëriñ bi ñu ngi lay siyaar. Ablaye Wade am na mbégte pour ñëw nga dalal ko. Ablaye Wade am na mbégte ak contentement pour dalal nga dalal ko. fi mu jaaree Touba jaar Tivaouane jaar Cambérène jaar ci église bi et eh ñëw fi. nee na jaar na ci kër kilifa diina yëpp. bay ci fii ci yow voilà baax léegi kon baax na. ayca bisimilah rahmaani rahiim ñu répété dégg nga waaw bisimilah. maanaam ana Dembélé moo ngi njëkk Dembélé. Dembélé bisimilah mu ngi nii. taxaw na teg si na taxaw na. yow toujours tu sais la derrière bu ñu la woowee rek Dembélé il faut être présent à chaque instant. yow il faut nga tardé ñu bu ñu taxawee rek. mettre fois tey xoolal ndax y' a pas des renseignements généraux. léegi ah. salaamaaleykum bandiraaɓe. salaamaaleykum mbooloo mi. Eh, mi salmini noon. nee na moom Wade Ndiak mu ngi leen di nuyu di leen sant bu baax a baax. eh bien mbiɗa haala noon jogoree. nee na ay tànkam tey li ko fi indi mooy tànki jàmm ak salaam. bii de xaaral nee na mu ngi leen di nuyu kenn ku ñëw ci turam ak. bii bi xaaral da gelleeje mbadde yu ma nee na nag tànkam yi fi ñëw tey di tànk jàmm ak tànk mbokkoo ko kóllëre. ne bien neen gis naa sëriñ bi muy muuñ ndax xam naa ne Haalpulaar yi ma làkk da koo bett. da koo bett ko woon barke mais mi salminan kon ko ko ko Fuuta bandiraaɓe Haalpulaar eh, nee na dafa wax ni ñëw gi mu fi ñëw tey ak ñu ngeen ko dalalee kontaan na ci lool yéen eh, mbokk eh, fof ko haalpulaar en e lamtoora ɓurgueɗe alwara so dow moto foti utade eh ɓe ñeppo ɓe eh, vraiment mi jara tan haal nee mu leen di mu leen di sant di leen gërëm am kontaan tagg na leen nag yéen yéen yéen fu waa Fuuta yi lamtoora ɓurgueɗe eh bien eh bien mbiɗaali kon programme so haali ko jode maddi keña uh-huh. eh waari kon goddo aɗa ko yarata ha rts mbi ko haami noon ko marche pacifique nee na ko ñaanal na nag ñoom gi mu fi ñëw mënut a ñàkk ndax jaar na ci kilifa diine yëpp yegg si fii nee na it di wut si it autorisation boo xam ne dina mën a ah, dox di ñaan autorisation boo xam ne dana mën a dox waaw ngeen ñaanal ñu ndax mu ñëw xool chantier yi nga xamante ne moom si bàyyi ci baat suñ saali bi bi alayhi salatu ba de wu mu ko gaadi e bi góor gi moo yor. waaw nee na it ngeen fàtte bu leen fàtte ni moom moo ko yor. waaw mais kon nag moo ko yor. ziar loolu loolu li ñuy wax ni. waaw moom la ñu dem wax foofu. boo waxee ba pare. foofu dafay toj. parce que xaalpulaar boo lakkee xaalpulaar rek. ñu xam ne dañuy kontaan seen bokk la ñu. dañuy kontaan bu ñu fa génnee nag ba yi nga xam ñoo nekk ca kanam. pour ñu wan leen ne ñun ay Haalpulaar lañ nañ leen bëggal rek ñu xam ne ñun ay Haalpulaar lañ. dëgg la dëgg la est-ce que yaa ngi comprendre li ñu waxtaan nii ma yow nii. waaw bu ñu duggee moom la ñuy wax ak kilifa bi. waaw incha allah bu ñu génnee nag eh bien wan ñi nga xam ne ñooy militant yi. incha allah que dañ demoon seete ay Haalpulaar. incha allah waaw soo defee nag am nañu séeréer yi am tukulóor yi eh bien am mag ñi am xale yi. Hmm. waaye tamit il faut Haalpulaar yi eh bien xam dembale. monsieur le président. waaw ah, waaw xoolal ndax les militants ñu ngi foofu ñu ko fi euh, les militants sont là. ñoom fële nañ sax ah, kontaan nañ gis nga gis nga kontaan nañ. kii waaw Bandiraɓe Fouta. Eh, Bandiraɓe Fouta. eh bien góogi. ñoo doole. Eh, ci Haalpulaar oh, oh, oh, dañ koy wax ci Haalpulaar. hewi doole. Eh. góor hewi doole. góor gi ni xewi doole. waaw góor gi ni xewi doole. góor gi ni xewi doole. góor gi ni xewi doole. bandiraaɓe. góor gi na xewi doole. sehlaaɓe. góor gi ina xewi doole. jokkoo bien. góor gi ina xewi doole. góor gi ina xewi doole. góor gi ina xewi doole. Ah, ina xewi doole waaw góor gi ina xewi doole bandiraɓe sehlaɓe bien bandiraɓe bandiraɓe bandiraɓe bandiraɓe e góor gi mina xewi doole góor gi mina xewi doole góor gi mina xewi doole góor gi mina xewi doole góor gi mina xewi doole góor gi boole. su ko defee eh bien famille Lam Tooro pour Guède Alwaar su Omar Foutiyou Tall yëpp ñu ngi leen di di am mbégte ak contentement ñu ngi nag dugg dem ziar sëriñ bi ndax fii nii luy fii la mën a yem waaye bu ñu duggee nag ñaan xam nañu ñu pare préparé ah, ah ayca am nañu mbégte ak contentement it mbaa fàttu góor gi. na jébi doole mi na jogi doole mi na eh, ma dikkee góor gi mi na jëndi doole. ah kon góor gi mi na jogi doole. góor rek. doole góor gi ina jogi doole gi ina jogi doole